asalaamaaleykum mbokk yi ñuy seetaan ci seen plateforme Akan Mentor ñëw nañu tey ci seen vidéo numéro 37 ci cours bi di HTML ak CSS tey ñu fas yéene leen jàngal benn propriété CSS bu am solo ñu koy wax display display nag ngir afficher lay doon donc propriété CSS boobu euh, kon Euh, dinañ ko gisandoo gis doole ji mu am ci CSS waaye gis valeur yi nga xamante ni yëpp mën na leen jël expliquer leen ko wala leen ci ay misaal ngir ngeen xam naka ngeen koy mën a jëfandikoo waaye ngeen gën a comprendre type yi muy mën a jël yëpp muy type inline type block type inline block ak type none muy ñeenti valeur yoo xam ne euh, daañ ko gis kon ci misaal fii am nañu euh, lu mel na ay paragraphe donc su ma ñëwoon tey paragraphe bi ma daal di bëgg xam ndax ay type block lan wala ay type inline lan dama leen di defal bordure tout simplement kon ma ñëw euh, fii par exemple ma def p paragraphe donc ma def bordure su ma defee border ma def border un pixel un pixel solid black solid black voilà donc waaw ah, ma dem euh, xool nga gis ne paragraphe kon type bloc la quoi ndax ñoom dafay jël largeur bi yépp largeur page bi kon loolu mooy wane ni type bloc la par défaut léegi nag pro propriété display bi bu la moom nga mën nga mën nga ko jëfandikoo ngir changer type bi mu nekk donc bu boobaa na ngay def mooy dangay ñëw nga ni display display def deux points nga def inline maanaam affiché ko ci type inline maanaam bépp paragraphe rek nay affiché ci type inline donc soo wanee bordure kon da nga gis ne léegi ay ay ay bordure inline la koy def donc ñu actualiser nga gis ne def na ñaari bordure yu bokkul donc bi bi mi ngi ko def type inline bii mu def ko type inline ñaari paragraphe yi donc ñu jël beneen misaal bu fekkente ni par exemple da nga amoon tey benn benn euh, span exemple exemple ñu jël fii propriété bi propriété euh, bi ñu def ko euh, benn strong te ku ne xam ne strong type inline la woon donc ñu jël strong après ñu fermer par strong donc am nañ benn strong donc strong jàngoon nañ ne type inline la donc ñu ñëw xool strong strong ñu jox ko bordure jox ko bordure ñu dem xool nga gis ne kon strong type inline la léegi soo ko bëggoon def type block tey na ngay def mooy dangay ñëw utiliser display nga ni ko display mu def ko block enregistré ñëw actualiser nga gis ne def na ko type block gis nga type block mooy largeur bi yëpp lay jël donc display mooy forcé benn élément bu nekkoon inline mu forcé ko def ko bloc wala lu nekkoon bloc mu forcé ko def ko type inline xaar ñu xool benn exemple léegi mën nañoo dindi suñu strong bi comme ko comprendre ngeen mën nañu dindi strong bi tamit annulé voilà léegi ñu ñëw par exemple ci pay ñu dindi fii display inline bi léegi ñu def rek pay border donc suñu actualiser nga gis ne nii la nga def par défaut léegi nag nga ñëw daal di nga ñëw daal di donc fii am nga P1 classe P1 ak P2 doo njëkk cibler classe P1 mooy def point P1 point P1 donc ñu def ci display deux points ñu def inline tiré bloc troisième baa ngi nii donc inline bloc lay nekk donc P2 aussi ñu def que même chose P2 aussi ñu def que type inline block nga gis ne kon gis nga wala ñu enregistré voilà point P1 point P2 voilà donc boo enregistré actualisé nga gis ne changé wu léegi nag nga jox leen ay pourcentage par exemple nga ne bii na jël bii nga ne na jël par exemple euh, soixante cinq pour cent soixante cinq pour cent soixante cinq pour cent bii ma jël trente pour cent waroo jël pour cent ndax war a bàyyi ay marge donc nga gis ne bii jël na soixante cinq pour cent bi jël na trente pour cent voilà donc yooyu mooy yi ñu leen indiloon tey ci seen cours numéro 37 ba tey ci HTML ak CSS kon ñu leen jox daje ci beneen cours ba tey ci seen plateforme Akan Mentor